kan la ñu war a fal ak ku ñu warul fal mhm. xam nga tey jii mhm. euh, imagine assemblée nationale bu Guy Marius nekk jaañ mhm. euh, nekk fa beneen espèce bu mbooj nekk fa ñoom ñu bëggoon nañu dugg di jaañ dugg euh, kii Guy Marius dugg lootu dugg mbooj dugg kenn rek laa jàpp ne amoon na fa place te dinaa si dellusiwaat kuru xaraa dugg dégg nga kon ba ñun ban façon assemblée la am <laughs> dëgg léegi nag ñooñu ñëpp ñu majeure partie bi euh, duggunu waaye ko dugg ak suppléant ya fa ne xoola Guy Marius Sagna nit ñi xàmmee mais xoola espèce bi xoola rek assemblée nationale démb Sénégal yëpp yi xeetu kanam ya fa ne xeetu melokaan ñu ñun am ñun ñooñu ñooy décider ñun loi yi nga xam ne ñooy réger suñu dund xam nga ne loolu Sénégal est tombé très bas gis nga li xew démb ku ko ku ko mais ils vont apprendre Aïssatou. ils xam nga euh, Ndiab d'accord naa ne fii ku nekk ku muus ren dañ laa naxoon daaw. Mhm. fii ku njool dañ laa tungóob. waaye dafa am yoo xam ne nekku su la taa nga xëy jàngee. Mhm. y'a au moins minimum. Euh, euh, gis nga Ndiab buñ bëggee wax ne. Mhm. affaire yi nañ jàng naa buñ kon kon. Euh, la bëgg a wax euh, neewu ma defu ma app vraiment defu ma waxuma ne ku jàngul wala ku amul diplôme mënoo nekk yee non non je ne pas parce que fii ñu bëri na ñoo xam ne amuñu yenn diplôme yi mm-hmm. te ñi ngi fi tekk ni ñu fi war a tekki mais man dama jàpp gëm ko ne am na ay fonction yoo xam ne mm-hmm. wax dëgg fa yàlla boo amulee diplome yi ni war mm-hmm. ak comportement bi ñu ak aussi formation bi mu laaj nga su au moins sax nga mës a jiite dara. Mhm. bu doon si ñetti nit ñun kii mës a nekk chef de quelque chose. Mhm. nga mën a nga mën jiite xam management. ñu mën a teg si yenn poste yi. Mhm. naa li xew démb nag njaab. Euh, dafa wane rek fi Sénégal tollu léegi mooy ci en terme de perte de valeur xam nga assemblée nationale. li tax ma ne la yàq nañu assemblée ba waaye seen bopp lañ njëkk a yàq ñoom. ndax lu doon yàq seen bopp ñoom. Euh, xamaguñ ko nag léegi xam nga lañ koy xam suba say mbokk dala seetaan say nawle dala seetaan nga nekk ci assemblée bi man Barthélémy je l'adore te il la seen mi may déglu. mais le cas Barthélémy Dias euh, a pardonner ku mel comme. moom laa mënuñu pardonner a yem novice la si euh, li nga xam ne mooy dans l'espace non mais Barthélémy Dias il est maire de dafa am Bart dafa amul circonstance atténuante mais xam nga la d'accord ma. Mhm. gis nga fii njàpp. doon kilifa du nomb baat booy takk du étiquette bu ñu lay koleyal <laughs> kilifa juddu waale la da nga judd am personnalité te personnalité booy sangu doo ko simmi booy nelaw moom du nelaw mais ñi ñi nekk démb am amuñu benn personnalité xam nga Guy Marius Sagna il n'a absolument aucune classe aucune yow dernière fois bi ma waxee fii laa waxee. ma mhm. ne la Guy Marius nañ jàppale nag am classe am raffinement. amul classe amul maanaa il n'est pas raffiné il ne mérite pas Guy Marius ne mérite pas de fouler le sol de l'Assemblée nationale te il n'est pas le seul xam nga démb lu tax dañu yàq seen bopp mooy dañoo wan Sénégal te foofu danaa dellu soit si le génie de Macky Sall dañoo won Sénégal ñi ngeen fal ñii la dañoo won Sénégal ne il est temps maintenant li leen di bàkkee Sénégal sénégalais mënul fal folli la fal folli la mën loolu phrase boobu fooy boobu foog mu dañ parce que ci mairie ba la commencé xoolam espèce su mairie ñam mairie bañ leen fayle ba tey lu ñu def dooruñu fayuñu ñu xeex dooruñu fayuñu ñu xeex léegi dégagisme bu amoon na na tout sauf Macky Sall tout sauf APR tout sauf benn Bokk Yaakaar teg fa ay espèces yoo xam ne matuñu sax jiite a ginaar chef de quartier mënuñu ko waxuma laax nag euh, euh, chef de de de poulailler yi mënuñu ko ñooy nga jël leen daf leen jox leen mairie defuñu fa dara ñu xëy suba ñu bëmax leen dugal leen assemblée nationale. léegi la seule moralité de ça mooy dafa war tax Sénégal yi laay waxal ba tey ñoom ñoo war te chaque jour wax leen ko fii ku fi falu ñoo la fal sénégalais nag waru warutul néewal doole kartam dafa war a xam ñan la war a fal parce que yow ñoo xam ne yow ay nit yoo xam ne yow en tant que nit rek naw woo leen bool bu ñu la rombee ci sa sa sa koñ doo leen faale ñooñ ñooñu pourquoi nga war leen voteel ñu war a toog am post boo xamante ni dañuy de yow sa avenir xool li xew démb assemblée nationale. mais il faut aussi euh, rappeler aux internautes yi nga xam ne ñuy seetaan euh, lu waraloon incident bi nga xam ne am démb ba finalement li nga xam ne mooy euh, le président de l' assemblée nationale rek leen mujje woon fal moo nekk ñi nga xam ne ñoo féetoo si opposition bi rawatina le groupe Yewwi Wallu ñoom li doon sàkku rek moo nekk ministre yi nga xam ne dañoo siéger à l' assemblée nationale nga xam ne dañoo nekk des ministres en même ëllëg ñu génn bañ a bokk si li nga xam ne vote bi selon ñoom loi moo leen ko may mais la réglementation de l'Assemblée nationale may na yooyu les ministres huit jours pour ñu rek avant ñuy euh, démissionner si seen ay euh, poste mu nekk mbir yoo xam ne Tatouine sato euh, ki di Serigne Bara Dolly moo ko njëkk a soulever Abdou kii di Guy Marius Sagna aussi wax ñu ñu gis aussi le maire le député maire de Dakar Barthélémy Diaz am benn geste boo xam ne Aïssatou donc euh, ça a choqué aussi euh, plus d'un ñu ñëwaat aussi ci Barthélémy Diaz euh, parcours politique mu dem ba nekk li nga xam ne mooy maire de de la ville de Dakar te kii di Dakar dafay nekk benn vitrine boo xam ne ñëpp a xu bàyyi xel partout à travers le monde tey Barthélémy Diaz nga xam ne dafa am benn parcours politique bi kon mu ko waxee est-ce que mënutoon am neneen lu mu réagir face à ñoom li ñu tuddee li nga xam ne mooy injustice aussi xam nga Ndiab <coughs> laal nga foo am solo. Mhm. damay njëkk a ñëw rek wax ne seen comportement démb dara justifié wu ko. Mhm. Euh, li ñu wax tamit naan ay ñii nañ démissionné nangam nangam. Mhm. Euh, buñ démissionné buñ war nañ fi toog waruñu fi toog ak nangam. xam nga kooku euh, ku ne am nga sa interprétation. juriste ñu ngi xëccoo fee. waaye man li ma jàpp gëm ko te man itam def naa samay investigation sama toog fii du dugg ay article ak nangam. installation bi démb la. ils ont huit jours mhm. ministre ay DG ak nangam euh, pour euh, démissionner ci benn poste bi. mais est-ce que ñooñu dinañ démissionner. waaw xaaral non mu ngi fii te leer na ñoom dinañ. moom laa loolu loolu kooku. <laughs> kooku kooku a huit jours. Mhm. pour débattre te lu leer mooy euh, je pense bien balaa dimanche. Mhm. dinañ am gouvernement bu bees mais xam nga loolu lu am solo. ñoom ñu ma gis ñu ñoom Guy Marius Sagna yooyu ñu rey seen bopp ci ñu démissionner. mais lu ñu lijjanti d' abord cumul de mandat bi am si ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoom ñooñu ñoom ñooñu ñoom ñooñu jugoo diggoon waaye yeewu askan wi. mais loi tënku leen. waaw non xoolal déedéet euh, kon bu dee loolu bu dee bu dee loi tënku leen maa fii kon Macky Sall bu ko neex mu demandé troisième mandat parce que foofu tamit expert yaa ngi demandé bu dee dama euh, euh, ndax quinquennat la ak nangam nangam xam nga xam nga lu ëpp loi kàddu. Mm-hmm. xam nga gor. kee tënku ko kàddoom moo ko tënk. c'est que Sénégal na mooy dëkk boo xam ne dafa dafa naqaree nekk gor xam nga man bu dee sama goree ma damaa dama je suis obligé ma signer dara dem euh, notaire euh, euh, mu validel ma ko nangam sangam. Mhm. jënd timbre légaliser ko pour loolu am valeur kon ma dama nitu valeur. Hmm. ñoom ñoo ñu diggoon ñoom man j'aurais aimé même arñu bu ñu wane ñoom ci ne ministre yeeg DG dañ démissionné ñu defoon la ñu wane woon la même ardeur. pour que ñoom ñi nekk seen seen waa seen député yooyu nekk en même temps ay maire ay nangam sangam ñi nekk fonctionnaire parce que fonctionnaire fonctionnaire yëpp état la. Hmm. ñi nekk nii nekk naa mooy nañ démissionné mais loolu su débat bi xam nga xam nga débat bi fan la mooy li nga wax sànq. Hmm. Euh, comportement irresponsable et irrespectueux. Hmm. yu ñu am ci assemblée nationale di ay gor di ay père de famille d' abord. xam nga guerrierisme bu ñuy jaay naan dama dem guerrier affaire de bande de quartier yooyu wala affaire de cour de récréation yooyu man maa gën a bandi njàpp noo njàpp sa guddi dama koy nangu yooyu ñoom ñu ko dépassé xam nga nit bu fekkente ne li ñu naan béy day xar day weesu mbote mhm. euh, ñoom ñoo ñoom ñu doon am comportement boobu xam nga amoon na ay temps li ma la wax sànq ne Ousmane Sonko moo yàq jikko mhm. moo yàq jikko yi moo tax ba ñëpp def gëm nag matérialiser ne Sénégal boo bëggee am dara boo bëggee siiw saagaal vulgaire al arrogant wal violent wal Ousmane Sonko moo ko fi ma Macky Sall ba mu yàqee institution Ousmane Sonko dafa ñëw feelu ko yàq jikko ndax tey jii leen yàq jikko boobu nag la moom moom la xale yi bëgg ba dugal ay ñoom guillemet espèces yooyu ay guillemet seen ñu dugal leen ci assemblée nationale ñooy loolu la tey jii euh, un nga xam ne xamul lan mooy un comportement respectueux yow boo boo boo boo boo respecté wul sa àddina nga respecté sa sa nawle yi lay seetaan sa doom sa sa jabar sa nangam est que loolu rafet na. jamono ji nga xam ne ñëpp nga doon ñaawlu xale yi nga xam ne bu seen école tëjee ñu dem saccagé seen classe ñoom le bien public ñu ay mag ay kilifa ay responsable nga toog rafet na hmm. ci histoire nga toog mais débat di de lañu wax hmm. baat contre baat xoolal démb xam nga laa ñan ñoo am comportement te li tax ma la ñàpp bu ko fàttee nga su ma ko fàttee nga fàttali ma ko hmm. le génie de Macky Sall yàgg sa wax ko xoolal démb ñan ñoo yàq seen bopp ñan ñoo jaay seen bopp àddina yeewi askan wi la xoolal te pourtant ñi leen gën a vulgaire ñi ngi ci biir benn bokk yaakaar ñi ngi ci biir waa wàllu mën nañ na teg noppi am classe benn bokk yaakaar démb ci assemblée personnalité la woon ak classe ak mat Macky Sall la fa jaar de wàllu askan wi wàllu yee intercoalition wàllu wàllu classé nga personnalité toog. Mhm. ñooñu kenn jëppiwu leen waaye waaye ñu wane seen bopp mooy ñu am fulla ñu am audace ne dañuy yeewu askan wi te ñoom yeeweeku ñu démb dañoo yeewu askan wi tënkuñu wan ñu ne li nga xam ne échauffement la petit la ñii bés bu leen joxee nguur Sénégal bu ñu bu ñu ba jël waa askan wi jox leen suñu nguur gi lu raw assemblée moo fi am parce que ñii duñu duñu ay kilifa matuñu. amuñu personnalité. mais dans les cas aussi Aïssatou kilifa. non mais kilifa yi non non xoolal ka euh, on est obligé ñu maas noonu am na ay kilifa mais mais bu dee am bu amee ay kilifa yoo xam dafa ñëw fi kilifa nag lan la ñu toog di seetaan. parce que xam pourquoi mais xalifa mais kaay ma wax xalifa Ababacar Sall kaay ma wax la euh, Ndiab. Habib Sy mu ngi fa xalifa xalifa euh, Ababacar Sall. lan la mën a Barthélémy Dias il il cautionne il est obligé de cautionner les insultes de de Sonko Euh, euh, irresponsable bu ñenn ñi parce que tout simplement ñoom ñëpp actuellement ils sont à la remorque de Sonko mu sell mi ñoom ñëpp Sonko moo leen yóbbu caravane Sonko moo leen yóbbu sañu ñoo wax dara dañu toog et puis aussi quelque part tam dañ naan ils vont se tuer eux-mêmes parce que tey ji da leer na ñoom li ñu def démb li ñu woon Sénégal démb te continue continuer di ko wane tey mais war nañu Sénégal tiital nañ ñëpp ñu tiitoon démb ci ñoom seen seen ñàkk yar ak seen incompétence seen médiocrité ak seen bëgg poste ñoom ñëpp poste nañu xëccoo ndax li li la xam lu inconséquent mhm. xoola démb li nga wax si Barthélemy mhm. moi j'ai honte ndax li euh, ma la wax Barthélemy di ko ma euh, euh, je je l'apprécie mais Barth dafa am un grand problème de comportement te malheureusement xamul ne ba léegi nii jëlu en consci xamul amul amul conscience si mhm. ne nekk amatul 10 ans amatul 18 ans nekkatul un xaw ma lan de quartier bo booy cap sir yooyu kilifa la xam nga nit nag. le maire de la ville de Dakar xam nga euh, nit. Euh, Ndiaye du n'importe qui. Ndiaye am nañu am na nit fooy toll kenn dootu lay yedd yaa yedd sa bopp. Mhm. ndax yow ba nga nekk fi maire Mermoz nga am euh, kii vraiment nattukaay ñu lay natt nag parce que baat dañ koy natt nattukaay mag bi maire de Dakar. foofu nga war a cuub sa bopp soppeeku mais ñoom dañoo gëm ne muy mooy muy bàtt ak ñoom ji mel sax espèce ñu bëgg siiw ñooñu gis naa keneen waajoo sant faal te ànd ak bàtt bëri wax kooku te mu nekk si parce que xam nga waaw ñu xam ñu tekkiwul dara bëgg siiw non non non may ma dama xoolal ma njàpp ñooñu xam tekkiwuñu dara amuñu benn au fait d'armes loolu kii euh, langaamu na ci Sonko te tey mi ngi langaamu ci Barth espèce bu dugaleen assemblée nga xam ne dañoo dañoo bëgg buzz bëgg bruit bëgg siiw parce que gis nañu ne seen mentor Ousmane Sonko saaga ak xaste ak weer ay nit ñàkk sutura moo tax mu agsi fu mu agsi ñu ni léegi kon nañ def noonu ñu def pour am lu mu am donc loolu nag sénégalais ñoo leen ci bàyyi maintenant ñooñu bu fekkonte ne ñu nekk ci yeewu askan wi te nga tudd leen ay kilifa mm-hmm. bu fekkonte ne ñoom seen bopp même euh, ndax ci di moo consent boo mënulee dara nit yow nga am sa conséquence su bopp génn si ndax ñu bañ a ci far mhm. maintenant li neex na par contre mooy mhm. njàpp mhm. démb sénégalais yi sénégalais